waaw commencé la aja yeewoo ak tiis yeewoo ak njàqare yeewoo ak jaaxle lool parce que lii mun nañ wax ne ñun ndaw Caaroy ñun jigéenu Caaroy lii du guleet ci Caaroy parce que nag vingt-six ans lii la ñuy dund asamaan si xiinee ñu daal di tiit tey ci tey gis ngeen benn taw première taw mu mel nii li ko waral ki ñu ko teg mooy ki nga xam ne tey nee nañu candidat la ci coalition Yewwi muy le maire sortant jagañaa bi nga xamante ne nii nee ñu tey moom candidat la léegi may laaj population Thiaroye di demande jeunesse Thiaroye est-ce que war nañoo nangu kii di ma kii di monsieur le maire jagañaa maire sortant dem assemblée tey defe naa ne waruñu koo nangu parce que nag 26 ans ñuy jànkoonte lii mu nekk ci suñu maire bi ñaar fukki at ak juróom benn defu fi dara ba bu xiinee ñun ñu jaaxle kooku tey est-ce que na nañoo nangu moom muy yeewoo caaro yu na mer nag candidat la ñun jeunesse caaro yi ñu nangu loolu foog naa ne ñun loolu war nañoo nangu kon tey ji tey dañu suñu pexe hmm. nañu xool naka la